mbokki Leewtoo tey ajjuma la le premier la de fii ci arène Adrien Senghor dañoo ñëw ne ki nga xam ne moom moo xew ne kan la Pape Dia moo fi teg mis bu am solo ubbee ko lambam Pape Dia ginnaaw bu ma géejee ci lamb ji ñëw am nu mu ñëwee mooy dooleem la ñëwee moom Pape Dia ñoo koy nuyu waaye nuyu mbokki ñuy suivre ci internet bi maa nag yàgg maar ci caméra bi nuyu mbokki Leewtoo yëpp yaa ci gis yàgg maar xool auto bi nii la dem ñoom dañoo ñëw taxaw. waaye boo xam ne moom am na ci solo lool ndax ñoom bu ñu leen gisee suñu biir yàgg dafay am solo ñu ngi noonu oto baa ngi noonu am na ñu ne ci biir am ñi xaar ci biti loolu mooy dañuy assurer sécurité bi ci biir ak ci biti mbokki Leewtoo dañuy ànd ak yàgg maar dugg arène Adrien Senghor ñu ngi daan defee fekki. ahlu lamb fekk ñi nga xam ne ñoom ñu amateur yi gis nga buntu baa ngi nii waaw mais grand naa def ay sant yàlla alhamdulilah waaw ah, mais tey moom Pape Dia moo ñëwaat waaw Pape moo ñëwaat tey pour wàcc fii ba mu nekk boobu ah. daf grand game tey loolu lañ jot tey ah, Pape Dia dafa gëj ci lamb ji jege rek ñëwaat waaw waaw waaw mais noonu la noonu la dañ doon am benn benn tal bi ñu def bu ndaw rek mais yàlla def ñu yëkkati woon quoi donc il est pour mes waaw waaw bi yaa ngi jàpp waaw mi ngi jàpp alhamdulilah euh, waa jaa ngay xotti bi yàgg maar xoolal Mali bi baa ngi nii gis nga waaw mais gars dañ koy xotti def ko ci paan bi wala waaw pour loolu non loolu bu loolu parce am ñoo xam ne dañuy jël billet yi ba pare génnewaat ko di ko mayewaat moo tax suñ ko daga dañ koy jugal fii. ñooñu daal maanaam waaw trafiquants lañ quoi xam nga billet ci ay seconde gars yi mënuñ ko trafiqué ci ay seconde waaw. buñ defee loolu nan ngay def ak ñoom dañ leen ñu ne système bi ñu rek am boo xam ne moom waaw mooy laas waaw bu ñu ñëw rek am na boo xam ne moom mooy loolu mooy. boo kii léegi tey yéen a ko gis mooy loo nga ne dañ ko fee ñëwee tey gis nga ñu ngi nii ànd ak seen gis nga nu muy def waa ji da koy visiter xool ba xam ndax yor na lu ñuy bu ko yoree mu génne ko gis nga génne na téléphone ba mu ne ko génne waatal li ci boos bi xool amul xale amul mag ñëpp la ñuy xool yàgg maar moo ki lawutoo lamb ñu noonu ak i mbiram ñu toppante waat ndeysaan ci li lañ génnee quoi. mooy Jobaas ana waay Isbak bëgg naa la. ndeysaan mooy Jobaas dafa ñëw tey yaa ngi gis kaay yaakamaar Abdou waxal ngi ki nga xam ne moom moo dëkk Diof Dior gi tuut fay borom ngeeñan gaa ngi nii mooy amateur yu mag yi ñoom ñëpp ñoo bokk ndey baay bu ñu ñëwee dañuy bunt bi xool lii ñu def ko ndeysaan mu ngi noonu sol veeram du lamba ni mel Sène xoolal ma cummi kaay ba yàgg maar xoolal cummi kaay laa ilaha illallah lii lu mu doon nii ñaari bigeel yi bi dañ ko am buus bu soog bi ñu am ko buus mu soog buus mu weex yàgg maar bukan bukan doy na waar sama lambi séeréer dafa doy waar lépp ci li ñuy def mooy waaw dañuy jiital jumtukaay ba mu ëpp man loolu laa seetlu parce que mbër yi ci ëpp seen i jumtukaay daanaka li mu koy gis sax doo koy gis si mbër mbër bu mag mi daa dem ba ci biir jël nga xam foofu la ndënd mi nekk mu jël ko ci suuf ko li nga xam ne moom am lu mu jël teg ca yaa ca gis ndeysaan El Hadj Sango borom Thiès ñu ngi koy waa Thiès ndeysaan mbaj naa ngi ni ndigaan a ngi taxaw Madou Ndigaan Seye moo xew le dimanche mooy ancien lutteur bi ne dootuñ ko présenté fi nga ne fii mooy Sénégal tey moom amateur la wala lan ah ah amateur la toujours même buy tegee ay pour sax damay ñëw fu ci yàlla andee parce que xol la daal. waaw mais Pape Dia daa yokk su gars yi daa nekk rek ñëw ba entraîné. waaw eh, daf ko préparé wu nag eh, yàlla dina ko jox li nga xam ne mooy wërsëgam parce que mbir yi macha allah eh, xaw nañu sakkan te amateur yaa ngi ñëw waaw maa ngi koy yéene itam mu génn ci képp kuy tegi ci lamb rek bu nga génn ci loolu yàgg maar eh mais dimanche la lépp di leer dimanche woo naa ñëpp nag si jàllaane amateur yëpp tëggat yëpp góor jigéen mag ak ndaw jërëjëf jërëjëf e ndeer yeroo binda bo bom faa bo ndeer yee e ndeer yeroo binda bo bom faa bo ndeer yee waaw yëpp ci bagage yi la rek. waaw. non Senghor it dañoo bari. dañoo bari façon quoi. <laughs> non. boobu dafa bari ay tegtal. waaw. butéeli mën nga ma ko def fii. butéeli ko def saafara la rek. saafara la rek. boobu yëpp saafara la rek. ban mooy gën a mën. ah. ban mooy gën a loolu rek la. mais léegi mu yor ci loxo bi lan la. non loolu loolu kii la rek ay bagage la rek non ay bagage la rek soriwul dara waaw. waaw. Ah, mais mbaxana bi dafa bokk ci bagage yi wala. non mbaxana bi moom bokku ci. maa koy indaale waaw. non samay bagage la man ci sama. samay bagage la samay bagage la. day lam. ndeysaan amaa ah, ngi noonu xale. seeni bagage sa doy waar mari yàgg maar bagage yi mbër doy na waar. doy na waar kay su mu yor dafa mel ne jooyukaayu gaal la. wala dañoo jël casque ba dëpp ko am lam ca dëpp. wala jàpp na samay bagage la ma yem. day ram. jëlal ma xoolal mu ngi fay tëj. xam naa bii casque waaw yéen amateurs yi ban impact la ci am. kontaan rek lamb suñ sañoon lamb buñ sañoon day am samedi am am samedi amateur ñu mun see gis suñu bopp mais kii di dëkk fële kii di dëkk fii amaluñu sens doo mun a nekk fee doo mun nekk fële amaluñu sens looloo ñu dal dimanche passé fa nekkoon di woote téléphone ku nekk fii ku jël fii doo mun a concentré wu sax amul sens si amateur amaluñu benn njëriñ. Eh, tey ba déggandoo mbokk yi waaw mais président nuyu nañ la. ñu ngi lay euh, nuyu Birame di sant di sant waa Leewtoo TV yëpp. di la gërëm aussi si teewaay bi nga teew fii du gulet à chaque fois Adrien Senghor su xew la dem fii nekk donc du lay gërëm bu baax a baax di la sant bu baax benn lamb ci benn dimanche dañu jegante lool ñu ngi ñuy rafetlu ñaari lamb si benn dimanche déjà ñu nekk si benn secteur distancé wu ñu mot 500 mètres rafetlu ñu ko parce que dafa bokkoon ci loo xam ne dañ koy xeex muy lan Adrien Senghor di tëgg terrain gaal bi di tëgg te loolu aussi peut-être ni ñuy joxe date yi Adrien Senghor peut-être moo moo indi loolu yëpp xaw ma lan la seen diggante jax bu loolu war mais je pense que bu ñu war a rek. deel ko arrêté parce que ñoom ñaar ñaari promoteur yëpp dinañ perte du fees te man maa la ko wax Adrien Senghor du bëri nit terrain gaal gi du bëri nit la si promoteur yi pertement la si ñoom ñun aussi amateurs suñ sañoon mbëri daje benn lieu dëggkat yi daje benn lieu wéykat yi daje benn lieu ñun ñu daje def ko fête bu neex mais lii ñuy séparé kii nekk fii à zéro mais kii nekk fii arrangé wu lamb te day rey lamb. mbokk yi Leewtoo premier combat de la soirée. Idi Thiam ak Njaw Ñing ña jàppante Njaw ci Ñing moo ñu moo yore ngemb Idi moo yore ngemb Lagos bi moom mooy Boy bi écurie Ndakaaru fay maa ngi leen di fay. boo nee affaire yi daaw bi rek ñëw nag. waaw waaw parce ah, que moom la ñu am bañ a toog bañ a perte temps rek ñoo compétir si. combat bi am nga combat. voilà ah garaawul de. waaw maa ngi xaar combat rek. maa ngi xaar combat rek waaw. ndeysaan day waaj combat Yank Maar jàppante ba yàgg na diggante Ndiol la ak Naama ndeysaan jàppante nañu jàppante ba diib na mën nañoo bare waay mor na ko mu jàgg ko a baax rek am mbégte si bés waaw baax a baax waaw. salaamaaleykum gars yi ngeen jaar. yaa ko gis. yaa ko maar mu ngi nuyu ñëpp. ku ñëw sant nañ la quoi. waaw daa ñëw waaw incha allah. Papa Dia. Papa Dia sama grand frère la sama xarit la. seen ndox maa mu tuddoo bés bés maa ñoo bokk lépp. ñoo ay doomu grand lañ. ñun grand lañu tuuturoo. soo gisee tay ma koy daloon dugal dama gis liggéeyam fii ci grand mais dañuy yoxasu gars yi Papa Dia. waaw mais c'est normal man dama ko dama ko xam moo tax mais nag yàlla baax na quoi nañ dem li si kanam rawatina bët gis ndeysaan combat ba dem na moon woon ginnaaw Sa Thiès numéro 2 mooy ba rek nga xam ne mooy Malika général Malika jàkkaarloog moom Sa Thiès moon woon ginnaaw yàgg maar jàppante ba teel na ah général combat bi yàgg na lool tamit. yàgg na xam nga ñaari champion lañu. dégg nga woykat bi naan xoo dig naan a ci benn gët. déedéet mën ta nekk. dañuy xel di rivaliser Lamine. loolu dëgg la. eh jàppante nañu. jàppante nañu. jàppante nañu. général général ñeme na ko. mu ngi mu ngi koy puus Pakala ngay bañ. mais règlement bu bëri simple bu jaaxal na ma ndengeñ bi ñu bañ laa mooy lan. non xam nga ndengeñ bu yàggee te defuloo dara même ba ci lutte avec frappe bi bu yàggee da ngay def action Pakala na ndengeñ na ko. si da ngay naqaree daal. a ñaanal moo ngay xale yi dañoo bàyyi lamb ji dem Espagne Adama Jali seen lamb yàgg na. ay Lamine mbokki li ko wër. waaw waa ak yaay. dëkk Babacar. dama bëgg a jëli Babacar Diome. ana Babacar fu mu waaye Babacar daal ay ginaaram lay lekk mu ngi fi. ah ko koj dimanche ca Lamine Diack suba. Lamine Diack si dimanche. ay Babacar korte nañ. dama seet su ma woote waaw korte nañ. aywa dem naa ba tamit tegal ma ay ginaar yu baax. ah yooyu ginaar waroon nga ma woo ma woo Ibra Saro la ko yàlla pongoon. dama la koy dama lay invité korte nañ. ah jar na ko Lamine ñaari xale yaa ngay bëre. dugub jëm maa ko bay. mais bagala mi bàyyiwul xale beeg yàlla bagala jëm na ah. général Malika bañ. ay waay général mi waay. général mu Malika bagala. comme maa bi dana naqaree lijjanti Lamine. non du yomb a lijjanti parce que daa entraîné

mais Pakala du mag sax dafa gëj a. du a bëre. mu ngi koy jaxabal li ngi bëre. général a koy bëre. général a puus. Pakala di bañ. Pakala bañ na. saltige bi moom mënut a toog benn place moom. ndeysaan saltige bi. sama mbokk la la mi. sa la wala da ngeen bokk sant. sama doom bàyyi la. ngeen di bàyyi dama ne de. Nguñaan la bàyyam jógee. dem fi am na mooy fii seen mbaadaan ay toolo ko fa yóbbu lamb ji day jeex de ah eh bagala la ilaha illallah bagala am na ndam jox nañ bagala victoire bi bagala bagala am na ndam papa ñu xala papa ña ay ñi tamé nga ñu sul wala ñaan ko ñu sul ngeen papa ñu jox ci dañu ko di sant journaliste yi tey naa ne lamb la rek tey danay daan suba nga ñàkk sant yàlla rek am sax ba ma joxe war na sëñ Tuuba war na ko ci war na yàlla waaw sant yàlla rek di sant sumay waajur di sant sumay supporter di sant amateur lamb rek aw amalu may pro si lamb waaw man nag lambu njëkk lu ma koy ñàkk yombul lambu njëkk lu ma koy ñàkk yombul quoi waaw bëre door ñoom Malick Dia ñoom ñoom ñoom nees ñoom am ma neex ñoom Garga Mbossé ñoom nees ñoo ngi dégg ñoom ñoo tax jël ma yeneen combat yi dañ ma jël